mbokk yi dal leen ak jàmm Adja Ndeye Diagne faatu na mbir mi Vox Populi mu ngi ñu koy nettali mu ngi naan mu ngi xewee sa quartier Gazelle ba sa pikinuri diis ay gone ñoo doon jotee ba faat soxna si nga xam ne ay atam tolloon na si juróom-ñaar fukk ak juróom di woon ab maire mbir mi nag ni mu demee Vox Populi di ko nettali naan ñaari xale yu góor yi dañ doon xeex sa mbedd moo kenn ka daw dugg si kër meer bi si la keneen ka jële aw doj ngir xaañ ko ko doj woowee nag mujjee dal si boppam Adja Ndeye Diagne mi bañ ko jiima rawale sa l'hôpital c'est la faatoo muy mbir moo xam ne doy tax euh, yéenekaay bii di Vox Populi xëy fësal ko si xëtam mu njëkkam yeneen yéenekaay yépp daanaka li ñu xëy fësal seen xel wu njëkk moo di rapportu ARMP bu atum 2017 enquête yéenekaay naan boobi le rapport nag ñëw ne indi ay leeral waaye it wane lëndëm lëndëm yi nga xam ne am na si nañuy doxalee marché public yi fii si biir réew mi mu ngi naan ay milliards yu bëri nag la ñuy tudd si boobu le rapport waaye yéenekaay bi lim si jàpp moo di marché public yi ñu ngi koy wéy di joxe si yaa ma neex maanaam gré à gré ndaxte lu toll si 139 milliards dugg na si doxalin woo xamante ne bii yaa ma neex képp la maanaam amul benn appel d'offre ci bi la rapport mu ngi naa it épinglé nañ ci ay secteurs yu bëri ministère des sports AGEP ak SNHLM ñoom ñëpp bi la rapport épinglé nañ leen buñ sukkandikoo si enquête yenn kaay le quotidien naan du ñoom képp kay kuddu APIX CDC ñoom it rapport bi sul na seen i mboot te épinglé na leen maanaam bokk na si ñi nga xam ne jàpp nañu ne ni doxalee ay marché seetul fii si biir réew mi libération di dee siwaat si boobu le rapport mu naan gaa yi kay defati nañu toj toj dëgg mu ngi naan ministre bi nga xam ne moo di Matar Ba da doon consulter ay quincailleries yi si formation yoo xam ni moo jëm si marché public gu ministère am mu ngi naan it si liggéeyu train express régional dépensé nañ ci lu toll ci ñaari milliards yoo xam ni xamuñu fan la jaar leneen lu ñu xamul fan la jaar lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti millions yoo xam ne waa ONACID dépensé nañu ko mu ngi naan Aliou bu maire bu Dakar Plateau moom dafa engagé woon benn jaaykatu matériel informatique ci yeesal gi ñu doon yeesal saalub délibération bu maire yi bu Dakar Plateau yeneen i mboot ak yeneen i looxool it mu ngi fës ci bopp bi yeneen bi nga xam ne moo di libération man ay contrat ak ay jëf yaa ma neex daanaka bëri na ci lool l'observateur naaw bi nga xamante ni bi bi la rapport tudd nañ ci ku si mel ni Mountaga Sy Cheikh Omar Anne jamono ji nga xam ne moom la jiite woon kuddu Socé Diop ak yeneen i kilifa yoo xam ne ñoom jàpp nañu ne doxee nañu ak seen bakkan si kër yi nga xam ne moom lañ leen dénk source aanaan ARMP kay daanaka ay mbóot dëgg la sulli fa mbóot ya gën a bëri nag buñ sukkandikoo si yéenekaay bi moo di kuddu ak këru tasu xibaar gi nga xam ne moo di RTS mu naan foofee ay milliards yu bëri lañ fa tudd le temps mooy naan bile rapport daanaka amul benn njariñ mën nañ ko jàppee fourage daal li xëddee na li si jiitu moo di yeex naa yegg si ndaxte tardé na ñaari at ndaxte rapport bu la ñuy fësal waaye moom mi directeur ARMP ay doxalinam si boppam war nañ koo seet te àdduwut sax jëmale si marché bi nga xam ni moom la nguur Sénégal la jëlee ndox mi si SDE jox ko siège ak lu si man di am bile rapport milliards yi ñu tudd bari na lool toll na si ñeenti milliards ak juróom bu ñu sukkandikoo si la soleil di koppar yi nga xam ne président de la république bëgg na ko dugal si sàmm gi ngir mu gën a mucc ayib loolee nag si jamono ji nga xamante ni bii ñoo ngay amale journée nationale de l'élevage sa kayal la ko xamlee foofu Sakayel nag buñ sukkandikoo source a war nañoo delloo njukkal barawo bu baaxa baax ki nga xam ne moo di sàmm Ndiobène Ka ndaxte moom def na ab mobilisation bu am solo waaye tamit indi na ay yeesal ci ministère bi nga xam ne moom la jiital tax président de la république yëkkati lu toll ci ñaari milliards dugal ko ci biir secteur am waaye tamit jënd carte membre éleveur président de la république di tagg ministre bi di ko woyal woyu tukkulóor laas yéenekaay moom si li mu del siwaat moo di caxat-caxatee gi nga xam ne caxat-caxatee nañ ko tribunal bu Louga mu ngi naan ministre bi yor wàllum yoon ak yoonal nag di maître Malick Sall mu ngi naan ñi nga xam ne ñoo def joojale mbir dinañ leen seet ba gis leen teg leen li yoon dogal si ñoom wàllum tàggat yaram stade yéenekaay moom del siwaat si doomu Bambali ji nga xam ne moo di Sadio Mané ngi naan moom mii kat daanaka mën nañ koo jàppee fubalkat bu gën a xarañ si génération bu Sénégal yëpp diggante but yu mu dugal record yi nga xam ne amal na ko tamit njariñ li nga xam ne am na ko ci biir terrain bi mu ngi naan Sadio Mané day dugaleeg tànk ndeyjooram tànki càmmoñam bopp ba sax day dugal mu ngi naan kii technique bu jéggi dayoo dëgg la amee moom Sadio Mané Jean Pierre Papin mu ngi wax ci biir record naan buñ ko joxee nag li nga xam ne moo di ballon d'or bu ren bi jox nañ ko loo xam ne yaayoon na ko lool ndaxte ay performance am kawe na lool njortu ci saison bi nga xam ne moom la ñu génn yéenekaay ba léegi di xibaar ci mondial bi soccer bi nga xam ne moo leen am sa Paraguay réewum Sénégal mujj na toog ci quart de finale ginnaaw bi nga xam ne Portugal gagné na ko ñeenti bal ci ñaar xalam demoon na bay neex buum ba dog lamb ji dina neex ni ki ren buñ sukkandikoo suñu lamb mi nga xam ne mu ngi naan Pape Abdou Fall daanaka mu ngi koy jéem a dekkilaat si combat boo xam ne taxawal na ko diggante Siteu ak Papa Sow mu ngi naan nag ñi nga xam ne ñoo di amateuru làmb yi dëgg mën naa am ren dinañu kontaan. jërë ngeen jëf mbokk yi di daje ba ëllëg incha allah.